Rafah de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay di siyaare yi nag Serigne Amdi Bousso mi nga xam ne yàlla def na ñu nekk ci biir këram tey moom itam sama digg àdduna sépp xam nañ ko ci ak cofeel ku mu am ci man mayet mu am ko ci mu yàgg lool booba daanaka nii laa toll yàgg na yàlla suñu borom boole ñu te ba na gëne saa su xëy day yokk ñu koy berlu cant bu baax nag ak ngërëm te di ko wétlu ko suñ xol fu ñu ko gisut sax yàlla xam ne ne dañ koy xalaat bu baax ndax ñëwante ko yërmaande ji waaye suñu xol du jug ci mukk ñu koy ñaara moo itam mu mu gën fa yàgg lool ndax bokk na ci baqiyatu salaf moom si bi yàlla suñu borom defal na ko yàlla na gën yàgg gën a wéttali njaboot gi gën a wéttali yoon wi mu doon jëm ju am ci njabootu Sëriñ Tuubaa gépp suñu Buxaari moom fekk naa seen i ba tey moo amoon ne ginnaaw liñ bokk bu mu amoon xaas xaasi ni yàlla defee seen jëmm yu nuroo su xaar dégg naa suñ suñ tubaab mas na koy romb ci kees njaariñ yi mhm. seen ko naan ko xaa kii ndoomus mbàkkee mhm. suñ bàkkaan la bëgg a wax ko ba tey kon loolu lépp rek ak ak féetale akub moom mi nag yàlla def mhm. jabaru suñ tubaab gépp ku ko gisee bëgg ko loolu yàlla ko defal ko seen jëmmam rek bëgg ko kenn mu utulu ko ci ñoom frontière diggam ak ak Cheikh Saliou Mbacke diggam ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñëpp xam nañ ko waaye loolu la amoon ci njaboot gépp boole njaboot Sëriñ Tuubaa gi fi nekk itam seen ginnaaw ñëpp Cheikh Mouhamadou Lamine Bara seen diggante ñëpp xamoon nañ ko seex Cheikh Sidi Moukhtar tam doo ko daa wax ne ko ñu sant bu so ñëpp yaa ci sama cër Cheikh Mouhamadou Mountakha mi itam cër la amaat ci moom xamal ngeen ko seen bopp kon nag moom jëmbul joo xam ne nii ko yàlla melal ni la ko melal kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak yàgg taxawee liggéey si Tuubaa bi yàgg wéttali njaboot gi ñu itam yàgg ko ànd moom ñu ngi koy euh, beralu cant cant bu ñu tibb suñu biir xol ndax suñu diggante ñëpp xam nañ ko ñu ngi koy sant bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Rafah بنا به ينفرد